yóbbu mu yaakaar mu yóbbu fa lu xew nee na lu xewagul bu ko yóbbu ci pénc bu sonn yàlla sonn ndax xewagul mu ni waaye itam taalib bi dafay moytu lu xew yi mu yóbbu ko ci pénc boo demee ba lu xew yi nga ne koy yóbbu ci sa pénc buñ la rusul man nañ laa ko roxal beneen bi ci def sukkandoo ci ay nit ñoom it ñu suuf suuf seen loxo di lekk ba ñu jékki-jékki ñoom ñooñu am ci ñu seppi seen loxo nit dañ leen neexul dem ba mu yàgg ñoom ña demoon dellu siwaat sóobaat seen loxo ci ndënd nee na ña ñu fa bàyyi woon war nañoo gën a suuf seen loxo xam ne ndënd lu ko dàq bu fa nekkoon ñu def fa kon nag fierté la ci noonu waaye Cheikh Wele di suñuy kilifa lanu nu joxoon nu yëg ci nun am na ko ba mu yàgg lool ah dëkk yëpp yàlla def barkeem ba kenn dootul soxla woo ci wuti la neen faneen loolu ca dëkk ba la ñu wuti ñi leen jàppale ci organisation bi ñu ngi leen di jaajëfal rawatina leen lëgle ci seen njaboot defal laa leen ko ñun ñëpp wassalaamu aleykum

te ñaan soog leen xaar ñaan. to leen toog leen